mbir mi fu mu nekk nii comme ni ko Papa Paa waxe rek ñun fu mu nekk nii situation bi ñu bëgg mooy son excellence le président de la république yëg ko ñu xamal ko ni oto yi nga xamante ne moom la indi woon fii pour renouveler parc automobile bi dañu ko jaaye cent vingt huit millions pour bu si déggee dara fa dëgg yàlla mu jéppal dimbali ñu si parce que ay borom kër lañu te si oto yi rek la ñu yoroon di yor suñu njaboot fa dëgg yàlla. loolu mooy waxu dëgg oto yi dañ ñu forcer rek jékki-jékki rek gendarmerie bu tàmba taxaw gaare oto yi fekk oto yi saate woon na suukar sax pour dem daanaka fi ngay gis ni am na oto yoo xam ne dañu chargé ba pare ñu dugal leen ak chargement jàmbur te loolu nar na indi problème ak yenn client malien yi nga xamante ne da nga leen am oto yi ngay gis nii am na ñuy chargé conteneur yi dañu yor chargement jàmbur xam nga bindaluñ ñu benn kayit loolu moom mooy wax bi bindalu ñu benn kayit dañuy wax chauffeur bi demal directement gaare foofu looloo waral sama ñëw man dakaar laa dëkk mais dama ñëw wàllu si sama euh, xarit sama frère parce que dañuy indi oto yi rek gaare ko fii jël caabi bi na la demal après nañ la woo. mu nekk nii comme benn bëñ rek la ñu yoroon am na si ñoo xam ne yor nañu ay camions yu bari mais ñu si bari majeure partie bi benn camion la ñu yor. tu es obligé ko nga pas parce que tamit gendarmerie la ba paré, nga bëgg mom. ne ñu jaar ko dëgg xam nga président ministre doomu sénégalais ko ah, projet c'était en 2016 2017 président Macky Sall là. initiative de renouveler parc automobile bon nous fait créé une coopérative jiite ko euh, ñu ñu ñu kenn ku ne na indi otoom bu màggat otoom otoom bi nga xam ni mënatul daw ñu indi ko ñu ñu kenn ku ne indi mat nañu mat ay gros porteur gros porteur ñu indi suñu oto mat nañu deux cent cinquante personnes kenn ku ne andi sa sa sa camion euh, ñu sa sa sa camion ak caution un million cinq cent ñu jox la oto bu bees bon le temps 2016 2017 li ñu tëgg projet bi ba ba bi muy génn ñu ñu woo ñu ni oto yi ñëw na bi ñu ñëwee ñu toog ñu ni projet bi ñu ni mi ngi nii ñëw leen signé déjà ci signature bi ñu ñëpp am problème parce que oto jaay ñu ko 128 millions oto yi fi ñu toll yi nga gis ni benn bu ne ñu ngi ko jëndee 128 millions 800 waaw ñu leen prix bi jaaduwul. ah projet bi c'était en 2016 2017 président Macky Sall moo joxoon initiative bi day renouveler parc automobile bon mu ñu rafetlu woon ko lool ñu créé benn coopérative mbërgu ba jàll jiite ko. ñu ñu ñu kenn ku ne na indi otoom bu màggat otoom otoom bi nga xam ni mënatul daw ñu indi ko ñu ñu ñu kenn ku ne indi mat nañu mat ay gros porteur gros porteur ñu indi suñu oto mat nañu deux cent cinquante personnes kenn ku ne indi sa sa sa camion euh, ñu sa sa sa camion ak caution un million cinq cent ñu jox la oto bu bees bon le temps 2016 2017 li ñu tëgg projet bi ba ba bi muy génn ñu ñu woo ñu ni oto yi ñëw na bi ñu ñëwee ñu toog ñu ni projet bi ñu ni mi ngi nii ñëw leen signé déjà ci signature bi ñun ñëpp am problème parce que oto jaay ñu ko 128 millions oto yi fi ñu yi nga gis ni benn bu ne ñu ngi ko jëndee 128 millions 800 waaw ñu leen prix bi jaaduwul. BND moo ñu moo ñu ko jaay mais li ñu waxoon lépp dara lañ ci deful déjà oto bi 128 millions bare na parce que boo demee ba Chine ñun dem nañu ba gëstu ba xam ni Chine oto bi boo jëlee Chine ba egsi Dakar 34 millions nga lay dikk. ñu jaay ñu ko 128 millions. ñun boobaa xamuñu woon sax lu muy jar mais amuñu woon sax xamoon nañu cher na mais nee nañ leen cher na ñun ñoom ñoom ñu jël ni dinañu dinañu yiir gunge ba nga xam ne dañ ko a fay ñun ñu ñaa di jël en tant que état ku mu wax loolu ñu tax a jël oto yi actuellement sama nga Tamba yëpp bagage ñu téye ko foofu ñu bëgg ñu wàcce bagage yi jàmbur bagage yi Mali sama oto nga nii man man du ma wàcce tant que benn oto bu ma ko wàcce du ma ko indiwaat parce que douane day ay ay loolu waaw ñun li ñu jooy mooy nañ bàyyi li ñuy def amul benn njariñ li ñuy jaay oto yi jaaduwul li ñu fay actuellement ba ñu commencé léegi ëpp na njëgu oto fay kenn ku ne fay nga lu ëpp 50 millions actuellement oto yi jëlu 34 millions bu fekkee dañuy dimbali ah doomu aadama mi rek nañ ko jaay ci prix bu yoo jaar yoon li ñu ne dañu manque suñu deret ak ak ak te loolu jaaduwul